wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa xabibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sante yàlla sunu boroom di julli ci sangu àddina ak sangu alaaxira te mooy sayyiduna muhammad aleyhi salaatu wa salaam ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd muy jàmm yàlla ak xéewalam ak barkeem di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na ko yàlla wàccee ci àdduna bi yépp waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara yi sunu kilifa diine yu tedd yi nekk ci réew mi yépp di ci jiital nag sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam xilaafa gi nga xam ni moom la ko yàlla teg ci kawam yàlla na ko yàlla gungeel boppam ba lépp loo xam ne maamam Seydil Hadji Malick yéene woon na ko rek yàlla mottalil ko ko damay faral di wax ni Serigne Babacar Sy Mansour kilifa gu yàlla jagleel la muy ko am cër waaye muy koo xam ni itam gisul cër bi ko yàlla jox ndax booy wër nit ku modeste ba agsi ci sëriñ kër Sy Mansour ci moom la modeste yam te ñun ñëpp àndandoo nañ jàng xadis bi sayduna muhammad wax ci nit ku wàccee boppam wax ni man tawaadaa rafaahu llaahu moom daal ku wàccee sa bopp yàlla yëkkati la sëriñ kër Sy Mansour nag nekk koo xam ni dafa jekku kaw ba pare taamu suuf danaay faral di dégg yenn saa yi waykat yi di wax ni sëriñ mbay si Mansour a tax kenn yabuñu ci fullaam ci faydaam waaye itam boo ko miinee ni ngay gisee dundinu Seydina Omar ci moom ndax Seydina Omar mësul nangu daray caaxaan ci jamono yu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam taxawaay boobu itam la sëriñ kër Sy Mansour am kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla di feddali itam suñu taalibe ci moom ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla sàmm ko mu dund at yu bare bare bare bari ak mboolem ñi mu bokkal Seydil Hadj Malick yëpp noonu la ñu koy ñaanale itam sëriñ Maodo si Dabaax nga xam ni tey bu fekkee miinoo woon Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabaax mën nga ni boo gisee sëriñ Maodo rek mën nga ni gis nga Alaaji Abdou ci bëggam gi mu bëggoon Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Cheikh Al Hadj ba léegi jeexital boobu dafay feeñ ci sëriñ Maodo waaye itam ci yar bi yar ak teggin bi nga xam ni tabaarakallahu yàlla def na ko ci moom moom itam yàlla na ko yàlla yokk wér noonu lañu koy ñaanalee itam suñu bunt ci kër Seydil Hadj Malick kër Seydil Hadj Malick li muy yaatu yaatu yépp dana ca am bunt boo xam ni booy dugg ca kër ga ci bunt boobu ngay jaar ki tax nga inscrit wu ci tariqa bi taalibe boo fi gis am na sëriñ bu tax mu inscrit wu ci tariqa bi ñun nag ki tax ñu inscrit wu ci tariqa bi mooy sëriñ Moustapha Sy bu sëriñ Abdul Aziz Al Amin ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ndokkeel itam ci weer wu tedd wi di ko ñaanal yàlla bu wér moom itam lépp loo xam ni sumb na ko ci yoon wi yal na yàlla def mu àggalee ko sagoom ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam noonu la koy ñaanalee itam suñu xarit suñu soppi suñu sëriñ sëriñ Habib si Mansour nga xam ni danaay faral di wax ni boo bëggee xool sañse bu rafet rek. moom Serigne Habib nga naan jàkk rek di ko xool ñu di ko ziyaara moom itam di ko ndokkeel waaye itam di ko ñaanal yàlla bu baax di nuyu mbooleem jabootu Seydil Hadji Malick bi yëpp dafa fekk ni ñi tudd xëy na ñoom la ñu gën a miin waaye bu ñu dee ziyaar wala ñuy ñaanal ñëpp la koy boole waaye nag ñii ñu tudd nag la ñu gën a miin ci xadara bi ñoom la gën a jaxasool ñoom la ñu gën a xam kon nag ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral yàlla taxawu leen ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam noonu la ñu koy ñaanalee itam <clears throat> suñu maam ju baax ja nekk Touba mu di Serigne Mountakha Bachir yàlla guddal fanam yàlla may ko wér wax naa bërki démb ci sama émission bi ma doon def. ma ne murit bu nekk sa cofeel yokku na ci sëriñ Touba te sëriñ Muntaxa moo tax ndax sëriñ Muntaxa bi mu ñëwee la wuy juróom waxoon Cheikhul Khadim wax ni lil Moustapha na waytu maa yu didu damay wax ni bayit boobu valable na ba tey ci sañ Muntaxa ndax sëriñ Muntaxa ñëw na waaye salaat na pas-pasu murit yi ba wan leen ni maa leen gën a bëgg Cheikhul Khadim ñoom ñëpp ñu roy ko ci cofeel googu roy ko ci njàmbaar googu nga xam ni yitteem foo takk kawe gi rek weesu na ko moom sëriñ Muntaxa ci mbaax gi ci ubbeeku gi ndax téere yi dañuy wax ni bu la njàqare dabee booy wax sa njàqare wax ko boroom kanam gu belli maanaam koo xam ni kanam ga day dafa dafa dafa rafet te itam day reetaan borom kanam gu belli téere yi dañuy wax ni bu la njàqare dabee nga fekk mbooloo taxaw booy wax sa njàqare wax ko boroom kanam gu belli sëriñ mun Muntaxa musu koo gis kanam gi ñàng foo ko fekk dafay reetaan dafay bég tegtal yi yonent bi joxe woon dafay feeñ ci moom te loolu ñëpp seedeel nañ ko ko yal na yàlla guddal fanam ak mbooleem njabootu maam Cheikhul xadim bi yëpp noonu lañu koy ñaanalee itam Cheikh Mahi ñas ca Kaolack nga xam ne danay faral di wax ni xam-xam boo ko bëggee dégg rek déglu ko arab bu riche boo ko bëggee dégg déglul Cheikh Mahi Niass grammaire bu wér naxwu boo ko bëggee déglu déglul Cheikh Mahi Niass li ko yàlla defal ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla na yàlla guddal fanam noonu la ñuy nuyoo itam Chérif Abdoulahi Thiaw Laay nga xam ni mage rek moo tax doo ko gis waaye fa mu wét ca ruqam la mu fa nekke mooy di ñaanal réew mi yépp fa tabaarakallaahu ñu naw nag danaay faral di wax ni tariqa bii ñuy wax laayeen ku leen naw laa li ma leen nawee mooy <clears throat> kenn du leen dégg ci ay débat dañ nañ ko ba suñu tegee seen tànt wala ñu teg seen guddi koor yi ñuy def tariqa bu nekk danañu wax li nu xam ci yow loola nag bu leen ci ñëpp royoon réew mi jàmm rek moo fi di am moom daal tariqa jàmm la tariqa la boo xam ni ñu ma naw lanu ñoom laayee ni ndax seen mbaax waaye itam seen yaatal ndax euh, lu yaatu kenn du ko xatal te ñun wax naa ba tàyyi ni li nu bokk mënuñu koo séddoo li nu bokk mooy diine ji li nu bokk mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag sunu kilifa yii ñu am dana jaadu ñu di leen ñaanal yàlla di leen yokk dëgëral yàlla guddal seen fan ndax seen dund am na solo ci réew mi kon nag kilifa diine yi ci réew mi yépp yàlla yàlla sàmm leen te aar leen ci daraja yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi mu mel ni weer waa ngi tàggatoo weer waa ngi tàggatoo waaye jaamu yàlla nag du fi jug weer waa ngi tàggatoo waaye jaamu yàlla moom du fi jug même bu koor gi paase lépp loo daan def ci biir weeru koor ni mu valablee ci koor gi noonu la valablee bu dul koor waaye am na ñoo xam ne bu koor gi paasee ñu pause jaamu yàlla yin daan def ci weeru koor daan ci xër bu koor gi jàllee ñu bàyyi ko am na ñoo xam ne bu koor gi desee trois jours démissionné nañ bàyyi nanu bàyyeeku nanu am na jigéen ñoo xam ne bu nu gisoon seen baax nga xam ne dañuy arrêté koor gi bu desee ñetti fan wala ñaar dañu naan man daal tàyyee naa umaat tàyyee naa fee nekkaat di woor am na koo xam ne naa fi la daawu ko raw bu koor gi desee ñetti fan commencé naa tàyyeel am na koo xam ne moom jaamu yàlla bi muy def bu koor gi jàllee pare na ci kon nag nanu xam ne jaamu yàlla yii ñuy def du période yàlla daf ni woon sayduna muhammad waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin yow sayduna muhammad deel jaamu yàlla sa giiru dund deel jaamu yàlla ba keroog dee di la dikkal moo tax jaamu yàlla amul période weer wi nag mi ngi tàggatoo waaye mu am lu ñuy tuddee zakatul fitri zakatul fitri mooy muuru koor muurum koor jullit bu nekk danga nga koo war a génnee su fekkee mënoo koo génneel sa bopp ki lay dundal nga xam ni sa dund ci loxoom la ko yàlla jaarale mu génneel la ko réew mu nekk nag dañu wax ni réew mu nekk la ñu fay dundee di ko gën a consommer ca dëkk ba mën nañ koo génnee ci loolu bu dee ci Sénégal xam na ni ceeb moom la ñëpp gën di dundee moo tax ñu taamu ceeb 2 kilo bopp bu nekk 2 kilo boo amee ñeenti jabar sa soxna yi ku nekk danga koy génneel ñeenti kilo yow ci sa wàllu bopp nga génnee ñeenti kilo képp koo xam ni dundam yow la war nga génneel ko ñaari kilo bopp bu nekk ñaari kilo ñu ne waaw yonent bi muuru koor yi ñuy génnee nii di ko saraxe lan lay jëriñ ki woor mu ne muurum koor tat tathirun lissaimi dafay laabal ki woor wooram am na koo xam ni rëcc li na bis ci biir weer wi jëw am na koo xam ni rëcc li na ci biir weer wi fekk dafa woor mu fen am na koo xam ni ci biir koor gi def na lenn loo xam ni bàkkaar bu sew la nee na yooyu ngay rëccile nag ci biir weeru koor te doo ko bàyyi xel te dañ la koo tere woon ci weer wi nga di ko rëccile yu sew yooyu nee na lii tax yàlla baal la ko mooy nga génnee muurum koor ku ko man nag yaa koy génneel sa bopp yenn saa yi nga gis ku ko mën a génnee ba pare di dépendre ci papaam déedéet moom daal boo ko mënee génneel ko sa bopp mën nga koo génnee bu la ñu la nee koor gi des na ñaari fan mën nga koo génnee bu la nee koor gi des na ñaari fan mën nga génnee sa muurum koor jox ko nag jaamu yàlla bi nga xam ni mérito na ko xam nga muurum koor organisation la bu l'islam créé boo xam ni li ci l'islam jublu xam nga lan la xam nga lu ci lislaam jublu mooy dañu bëgg jullit bi loxoom jotul gannaawam mën a am possibilité ci ay mbokki jullitam li nu koy jox mu mën cee dem jëndi ginaar li nu koy jox mu mën cee korité comme ñëpp ba bu korité jotee ni dëkk bi di mel mënoo xàmmee ki togg ak ki toggul sutura boobu la ci lislaam bëgg waaw yow li lislaam war a suturloo li lislaam organisé pour jullitu yàlla bi mën cee suturlu ba kenn du xam ndax ñoom diw togg nan wala ñoom diw toggunu nga bàyyi ba jour ba bay waaj a julli ji doog koo génnee mais passé na kan koy jox amul fu mu ko def beneen bi ci des mooy xool nanu ni ni jamono doxee su fekkee ñépp ceeb lañ génnee ceebu kese koritewul ceebu kese koritewul bu dee oustaz Modou Fall la ñuy jox muurum koor mi moo ko mérito ñépp jox ma ceeb di ma xool ceebum kese nu ma koy def xanaa bu ma ko doon sombi sax dinaa soxla suukar moo tax jàppalante boobu nag la ci lislaam bëgg ci jullit ak moroomam moo tax ñu bëgg nga bëgg nga teel koo génnee jox ko nag ki ko mérito boo ko koy jox bu ko bu ko bu ko ko jox joxinu maa la gën bu ko ko jox joxinu tiitaru bu ko manifeste bul woo kenn naan ko kaay film ma maa ngi joxe muurum koor comme li xew ci koor gi yenn saa yi nga dégg ku ni la seen télé bi bu ma bëggoon ñu ñëw couvrir ma sama ndogu yi may séddale yi may joxe te yàlla tax nan laay def pour TFM couvrir ma mais loolu loolu yàlla taxul ba nga ca dugalee TFM nga ci génne yàlla parce que da koo bëgg a wane. moo tax ñu bëgg nag zakatul fitri jàmm bi teel koo génnee. bu koor gi desee ñaari fan mën nga koo génnee bu desee benn fan mën nga koo génnee juru korite mën nga koo génnee ba kañ ba keroog imam di sëlmal ca julli ga di ñibbisi ci kër gi heure boo déggee ñu ni waa jàkka ji ñibbisi nan pare nga ci mburum koor date bi passé na jeex na jeex na ni ngay wooree ba ngoon jot dégg ñu ni noddu nañ timis nga dog mooy koor gi jeex na boo xoolee ba ñu julli ji ba ñëw te génnee woo ko pare nga ci deux mille vingt deux ngay préparé incha allah waaye muurum koor deux mille vingt et pare nga ci moo tax yitte nga ciy def pour génnee ko waaye nag boo bàyyee ban julli ji ba ñëw nga natt sa ceeb di séddale ah da nga am nag tiyaa bay ku saraxe waaye nag tiyaa bay muurum koor doo ko am parce que muurum koor paase na ñu xool ñi ko yeyoo ñu jox leen ko zakatul fitri lu am solo la waaw yenn saa yi nga wóor ndeysaan di jëw rek yenn saa yi nga toog ci tele bi gis kenn rek ne kii ni ma soofee tooñ nga ko te yëgu ko su ko defee yu sew yi ngay def ci koor gi di la rëcc parce que ñi tàmm jëw même weeru koor dana ñuy rëccile parce que seen nit lu mu tàmm pour mu bàyyi ko du ko yomb am na ñoo xam ne fen dafa chronique ci seen yaram même buñ bëggee wax dëgg mënuñoo wax dëgg parce que dañoo tàmm fen am na ñoo xam ne sos ci seen deret la nekk am na ñoo xam ne fen ci seen deret la nekk léegi nag boo melee noonu nag yu sew yi ngay rëcc la ci diggu koor gi di ko def lay tax yàlla ni laa ah, jéggal naa la mooy nga ne ko yàlla man kat ci sama ñaq dinaa ci génnee nangam dimbalee ko képp koo xamante ni bi tane naa ko kon nag nañu ko bàyyi xel yenn saa yi yàlla dénk la teraanga nga jàpp ni lépp yaay boroom fekk daf laa séddale loo am na ku dend ak yow amul lu mu jëndee ginaar am na ku dend ak yow amul lu mu koritee bàyyi ko xel jullit dafay partagé réew mi nag am na fi ñu mën a def lu baax ñoo xam ni li nuy def yàllaa tax laa nuridu minkum jazaan wala shukura am na ci réew mi ni mu amee ñu mën a ngistal noonu la amee ñu mën a def lu baax te soxla wuñ ku leen gërëm laa nuridu minkum jazaan wala shukura ñoom daal li ñuy def yàlla moo tax ñu di ko def am na ci réew mi def te yàlla tax dafa am solo parce que sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bis penc bokk na ci ñu yàllay keral mooy koo xam ni lépp looy def yàlla tax mooy ki nga xam ni buy soraxe ci loxo ndeyjooram càmmoñam du ko yëg na koo xam ni buy saraxe ci loxo ndeyjooram càmmoñam du ko yëg kooku dafay def te yàlla tax te jëf ji nga def te yàlla tax loolu la la yàlla di fayee ëllëg ndeysaan xoola ku mel ni Seydina Ousmane Seydina Ousmane xare dafa jot ñu war a dem ca guerre ba te amuñu arme amuñu lu nu xeexee amuñu jaasi amuñu yat amuñu fas amuñu dara Seydina Ousmane ne danaa miiraas sama bopp jaayante kook yonent bi sallallahu alayhi wa jox ko sama lépp ngir lislaam danaa jël sama lépp joxe ko ngir lislaam Seydina Ousmane wëq alalam la mu dencoon lépp mu jël ko jox ko yonent bi ni ko comme xare am na te mënuñu amuñu amuñu matukaay nanu jël lii ñu jëndee ko <laughs> ñu jëndee ko lu nuy xeex ñu waajalee ko waaye keroog ba xare ba jeexee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli géey yonent bi gée lay ñaanalee Ousmane ba fajar jot Allahu xam nga benn ñaanu yonent bi benn segondam rek àdduna ak li ci biiram jar na ko waaye yonent bi toog julli gée toog ci sijaadaam julli gée moom Seydina Muhammad di ñaanal Seydina osmaan ba ñu nodd ca jàkka ja mu doog a bàyyi keroog la yonent bi garanti ni Seydina Ousmane mii kat maa ngi leen di xamal ni gannaaw jëfu tayam ji mënatula def lu ko yàllay toppee allahu akbar moo tax mu amoon cër moom Seydina Ousmane am na bis Seydina Muhammad tëdd abu Aboubacarin fekk ko mu tëdd mu nuyu ko mu fay ko Aboubacarin toog nes tuut Seydina Omar yegg si mu nuyu ko fay ko mu toog Seydina Ousmane di dugg si njol màkka ni kokkan la ñu ne ko Ousmane ay yegg si Seydina Muhammad jug defaraat toogaayam bi jotaay ba jeexee kenn ci saxaaba yi laaj ko ni ko dañu gis nga def benn geste mooy Aboubacry nuyoo na jugoo Omar nuyoo na jugoo Ousmane nuyoo nga jug defaraat sa toogaay loolu pour lan la xanaa yamale woo ñu ñun ñëpp yonent bi ne leen Seydina Ousmane yàlla ci boppam moo ma xamal ni daf ko rus moom yàlla dafa rus Ousmane te man yonent bi ku yàlla rus danaa la rus lii doo nga tax ma jug di defaru yàlla ci boppam nee na daa rus Ousmane yàlla yàlla mi nu bind nee na moom dafa rus Seydina Ousmane allahu te kat ñaan yu rëy yi yonent bi ñaanal Ousmane yëpp li ko may Seydina Ousmane mooy financé joxe waaw joxe wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa wa aadama ajra yàlla nee na lu ngeen fi jiital ci lu baax su ngeen ñëwee fekk ko fi du manque virgule kuy def defal te yàlla tax réew mi nag fi mu toll lépp looy defal nit di ca séentu tagg wala ngay xalaat yu ñaaw yi mu la defal doo ko defal wax naa ko keroog man ni leen képp kuy fàttaliku doo def lu baax képp kuy fàttaliku balaa ngaa defal nit di xalaat naan war naa koo defal wala waruma koo defal lim ma lebal am na at sàngam defoon na ma nangam toroxaloon na sama yaay bis nàngam ak nangam am na ñoo xam ne ku fàttaliku démb sa dërëm duñ ko lekk moo tax boo xasee bay def lu baax bul fàttaliku réew mi ku fàttaliku doo defal kenn dara parce que am na koo xam ni sonn na te yaa ko war a dimbali te lebal na la lu tax waroo koo dimbali boo ko toppee doo ko jox waaw moo tax boo amee intention di def lu baax bu ci déglu kenn bul déglu ñi lay gàntal bul déglu kenn am nga intention wu def lu baax def ko ngir jëmmi yàlla Seydina Alin ci mujj dundam dañ ko ni Alioune yow kat yaa ngi jox koo xam ni alal ji nga koy jox da koy caaxaanee mu ne yëguma ni ci loxoom laa ko teg waaye yëg naa ni ci loxo yàlla laa ko teg allahu akbar war a defal defal ko Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabaax ku baax kooku nga xam ne réew mi ñëpp ko sopp am na bis muy jox benn màndikat xaalis ñu ne ko ki nga koy jox daf koy naanee sàngara mu ne moom gisul loolu ci loxo yàlla la ko teg parce que innamal amalu binniyaati moo tax am na jëf yoo xam ni bu ko nit ki dee def intention ba mu ca am la yàlla di xool waaye xoolul ki nga koy may lan la ciy def xamu ko xam nga sëriñ Cheikh Tidiane si ku dégg jamono la yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk ay leeram njaboot gi mu fi bàyyi sëriñ Mansour bu sëriñ Cheikh sëriñ Moustapha si responsable moral borom daairatul mustarshidina wal mustarshidaati ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla na ko yàlla yokk dëgëral yàlla sàmm ko ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Cheikh Tidiane si dafa mas a wax wax bu am solo sëriñ Cheikh Tidiane si nee na dama dem ci dëkk nee waa dëkk ba di xuloo ci jàkka ji penku la jublu ñii ni jubluwul penku nee na mu indi coow lu rëy ci jàkka ji ñu ne jàkka ji daal architecte bi dafa juum ndax fi mu féetale xibla bi du xibla Serigne Cheikh nee na ñu coow ci ba judd coow li rëy nee na ma ni leen yàlla jàkka ju jublu penku intéressé wu ko li ko soxal moom yàlla mooy ñii jullee ci jàkka ji jublu penku allahu akbar mais xoolal atte atte bu sew boobu yàlla soxlawul waa jàkk ji ngeen jubali penku yéen a ngi werante xam ngeen léegi fi penku bi nekk te mënoo leen a tojaat jàkka ji walbatiku leen ngeen changé position yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant muy jublu ci kaaba gi yàllaa ko ne eh xad nara taqalluba wajhika fi sama fala nu walliyannaka xiblatan tardaha fa walli wajhaka chatra al masjidi al haram wa xaysuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra yonent bi tourné jàkkaarloog penku bi te bu njëkk daawu fa jublu ci kaaba gi sëriñ Cheikh ni leen nag jàkka ju dëng may na penku wala mayul penku intéressé wul yàlla li yàlla bëgg mooy waa jàkka ji ci boppam nañu jublu penku moo tax def te yàlla tax am na solo def te yàlla tax dafa benn nitu yàlla ndénkaan yi mu dénkoon doom ji képp ku ci sukkandiku ëllëg booy dem ca yàlla mu naan la aljanaangook ngoog duggal dafa am benn nitu yàlla boo xam ni keroog bi mu tollee ci sukuraat dafa woo doomam ba mu ñëw mu ne ko ndax bëgg nga boo dajeek yàlla yàlla bëgg mu ne ko waaw mu ne ko wutal bigg ak fooy ma jox la loo xam ne ku ko ngànnaayoo ku dajeek yàlla yàlla bëgg dugal la aljanna te loolu ñëpp ko bëgg kuy dund ku ne ñaan nga yàlla boo faatoo dajeeg yàlla yàlla bëgg dugal la aljanna góor gi nag ni ko li ma lay dicté boo ko jëfandikoo ëllëg boo dekkee yàlla dana bëgg te bu bëggee dana la dugal aljanna allahu akbar moo tax na ko ñëpp jël benn xakim bu yàlla may ndeysaan tax olof di lépp naan mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla yenn saa yi nga xeeb xalaatu mag fekk moo lay jariñ yenn saa yi nga xeeb xalaatu mag fekk moo lay jëriñ koo gis ci àdduna war na am conseil mais nit du naw xelam am alal ba naw sa xel ba jàpp ni kenn waru laa digal am xam-xam ba jàpp ni kenn waru laa digal man oustaz laa kenn waru maa conseil may jàngale diine mais dangay daanu nit ku nit ku ñàkk conseil ci àdduna lu mu def mën na caa am defet loo am xam-xam am xam-xam jàngal ba yey téere yépp boo bañee di déraper foog nga am conseil mën ta ñàkk conseil ak nit ñoo ànd ku bëgg sa mission réussir foog nga am conseil président da koy soxla directeur bi da koy soxla imaamu jàkka ji sax dana am conseil bu bekk bu fekkee bëgg naa dégg dëgg ndax dama dégg ci sëriñ Moustapha bu Serigne Cheikh mu wax ni képp koo xam ni buñ la dee wax dëgg yow mi nuy wax dëgg li nga yàkkamti mooy na daaneel ba ma tontu ko mu ne doo dégg dëgg su fekkee dañ lay wax dëgg te yow ki la koy wax yaa ngi ne tekk rek di ko xaar mu daaneel mu daaneel rek nga tontu ko mooy li ngay wax intéressé wu ma gaawal ma tontu la mu ne dëgg googu doo ko jariñoo kuy dox ci àdduna war nga am conseil am ku lay xelal sa waay gisoo ni nii moo gën gisoo ni nii moo gën déedéet am nga xam-xam jàng nga am nga pédagogie nit ñi bëgg nañ la jeexal nga téere yi xel moom foog nga am ñu la koy tegal xel matul soo bañee dugg ci yenn njombe yi il fallait que nga am conseil parce que am nañu yàlla may xel nag ñoo xam ne du ñu duñu directeur duñu boroom xaalis waaye xel mu rafet la leen yàlla jagleel ustaas yi di leen soxla sëriñ si di leen soxla ku bëgg a sa mission di nga am conseil yonent bi sallallahu alayhi sallam moo gën ñëpp ci juddu gën ñëpp li bind ki ci gënal yàlla yàlla ni ko yaa gën ñëpp mooy yonent bi alayhi salaatu wa te yàlla da ko ni boo bëggee sa mission di réussir wa amruhum shura baynahum il faut ngay diisoo gaa yi ñu lay conseil conseil mën ta ñàkk de loo am am am am daraja boo bëggee réussir danga ko am sëriñ boo dégg ni dérapé na rek ñàkk conseil moo tax mu dérapé oustaz boo fi dégg ñu ne dérapé na ñàkk conseil moo tax mu dérapé directeur boo fi dégg ñu ne dérapé na ñàkk conseil moo tax benn mag daf ni woon ku bari ñooy waxal sa juum mën naa néew ku bari ñooy waxtaanal say juum mën naa néew juum moom du ñàkk parce que ci matadi doomu aadama la bokk mais nit ñi duñ ko comprendre noonu nit ñi ñoom xamuñu ni juum ci matadik doomu aadama la bokk yenn saa yi nga jékki-jékki juum daf lay gën a confirmer ngi nag doo yonent doo malaaka nit nga parce que yaa ngi juum soo noppee juum nekk yonent parce que yonent moo dul def bàkkaar mais malheureusement Sénégal xamewuñ ko noonu tey bu oustaz Modou Fall juumoon def njombe bu rëy lan ca xam mooy partager siiwal yàq ko occasionné wu ci ne war ta juum oustaz la mooy jàngal nit ñi war ta def lii nangam nangam or que oustaz beeg xam-xam beeg lum ci doon njuum gi ci moom la bokk da koy def. mas naa ko wax benn mbokk muy ree ma ne ko man bàkkaar bi may def man la concerné maag yàlla mi koy bind. keneen ku ci sawar di mbépetoog intéressé wu ma man li ma gëm ba gëm ko mooy bàkkaar bi yàllaa koy bind moo koy effacé su may jéggalu moom laay jéggalu pas nit pas nit ku ciy commentaire amul solo kuy bind bàkkaar yàlla ku koy effacé yàlla bàkkaar bi nga def waru ko tiitee nit mais réew mi dafa am ñoo xam ne bu ñu la sëqatalee nga nga xoxotal mais ñu dox sa bu ko nangu bul nangu nit ñi di dox ci sa kaw cër bi la yàlla jox exploité ko exploité ko waxal ak nit ñi li yàlla wax soo juumee reconnaître sa erreur bul ci rus bul ci gêné wu bul ci am problème mais wanal nit ñi ni leen yàlla laa yaakaar moom laa gëm samay bàkkaar moo koy bind moo koy effacé mais et puis c'est tout mais bu fekkee bëgg nga loo def li ma diw xamal bu ko waxee ma yàqu bu ko partagé fan laa jëm nangam nangam dootuma xaj ci mbedd mi bañaa xaj yaa fay xaj a jàmm fii àdduna la ku dul def bàkkaar amul ci kaw kawnu bi ñéppay juum yàlla daal moo yett sayduna muhammad yett yonent ci mbindin moo xam ne yonent moom du juum waaye ku dul moom danga def bàkkaar Sénégal nag na ku nekk juum amul problème waaye ay bu ustaas bi juumee <laughs> tama du la ëpp buum de l'observateur xam nga journal boobu yaa koy raw yaa koy gën a jar ñépp danañ ci jot parce que léegi réew mi li fi xew mooy jéppi nit walla xamal nit lu ñaaw bind ci internet Sénégal dafa neex da ngay naan sa attaaya tegale say tànk dugg Facebook man daal dafa am benn oustaz buy génn TFM keroog yëre bu bula la sol mbasin bu bula oustaz boobu lii la ma def def na ma nangam ak nàngam gaay a commencé <laughs> boo nooyee bopp dañ lay déstabiliser parce que li nu bëgg mooy yàq la ba dootoo wax bu ko may nit ku yàlla bind danaay faral di wax ni bu oustaz yépp meloon ni man wallahi la asim réew mi avancer parce que damaa gëmul ni man nit ku yàlla bind mën na maa déstabiliser calculé wu ma ko lijjanti ko xam nga luy sama avenir nan laay def ba am ci milliards yi gars yi am tamu lew milliards yi ma am ci am ci kër yu baax yi yokk xeetu Seyduna Muhammad tabax ci jàkk yu bari yi tabax ci internat yi di dimbali ñi ma tane avancement man moom lay calculer pas ay commentaire ay wax ay yi yooyu da nga koy belende mission bi ku ci ne boo bëggee réussir da ngay belendewu takk téere tul tul mooy tulu tulu commentaire da nga koy takk am na tul di ngay takkee téere tul am na am na da ngay takk téere commentaire mooy bu la benn commentaire déstabilisé bu la kenn sonal fii àdduna la passage la dañu fiy jaar jàll ñiy wax ci yow ñëpp bëgg nanoo mel ni yow mais mënuñu ko li ñuy mottalikoo mooy seen làmmiñ beneen bi ci des mooy cër bi la yàlla jox moom ngay santee benke ñenke yeeg kàddu yu ñaaw yiy jóge ci bitti cër bi la yàlla dénk loolu ngay xool xam ni yàlla nag ku mu ni danaa la yan il faut téeñ bi ñëw bi mooy commentaire yi dafa benn jikko boo xam ni danaay faral di wax ni képp kuy liggéeye TFM war nga koo roy ci suñu patron bii fi nekk muy Youssou nduur Youssou Ndour li ko ñëpp seedeel mooy nekk ci li mu nekk maye patt bi patt bi mooy tax nit réussir Sénégal léegi il fallait ko ku ne am slogan wu patt bi patt bi mooy maye parce que nit am na koo xam ni mi ngi wax ci yow li mu bëgg mooy nga tontu ko moom nit ñi xamuñu ko yow la nit ñi xam yow léegi dèjà soo ko tontoo nit ñi danañ ni naa dem gëstu ji ki oustaz du Fall di tontu ba xam kan la bu vingt personnes demandoo mille personnes demandoo di xool waa ji ngay tontu kan la mais may nga ko bës léegi siiw na nit ñi xam nañ ko te moom sonnul daa wax ci yow rek jaare ci yow siiw loolu nag bu ko may kenn ku ku mën a wax ci yow bu ko tontu parce que boo ko tontoo nit ñi xam la man moom kenn du jaare ci man di siiw ku bëgg a siiw rampel rek jaar ci daayira di waxtaan jaar ci rajo mbedd yi jaar ci kii yi ba ñëw ci télé yi commencé wax waaye wax ci man xas ma saaga ma nangam Modou Fall patati nangam nangam nii non non du tax nga dem bul may kenn di ko tontu mu nit ñi di ko xam muy yokk xañ leen ko dangay nay ci sa bopp maye patt bi lu waay wax jéggal ko soo ko defee rek noppalu mu ne nag danaa de dénk yow sama doom ko yoo xam ni boo ko comporté woo ëllëg boo dajeeg yàlla yàlla bëgg doom ji nag dem wuti bëgg ak fuuy ñoo ni ko papa yow laay déglu mu ne ko li ma lay dénk maa ngi dem bàyyil ak àdduna waaye bàyyil xel ni in kunta fi salaati fahfaz xalbak allahu akbar mu ne ko maa ngi lay dénk na nga fonk julli te saa yoo demee bay julli yëgal ni yàlla dong moo existe ci àdduna bi saa yoo demee bay julli yëgal ni yàlla dong dong dong moo existe ci àdduna bi parce que jaamu yàlla bu xasee bay julli boo nee allahu akbar yaa ngi jàkkaarloog yàlla mu ne nag boo xasee ni allahu akbar concentré wul ci yàlla xamal ni yàlla moo jàkkaarloog yow bul rap-rappi bul def lépp luy no luy nuru doyadi bu ko def nee na concentré wul nga jël sa xol wakiilu ko ci yàlla saa yoo demee bay julli parce que nit buy julli dafay am concentration booy julli gi xew léegi Sénégal nga xam ni da gis kuy julli mënoo xam ndax day julli wala julliwul parce que bu fekkee da ngay julli mel ni ginaar guy cof loolu du julli am na ñoo xam ni ci ci ci deux secondes la ñuy jéem a julli allahu akbar allahu akbar sama laalu xam allahu akbar allahu akbar loolu du julli soo demee bay julli jàppal ni ki nga jàkkaar lool du sa moroom jàppal ni ki nga jàkkaar lool moo la bind jàppal ni ki nga jàkkaar lool mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala jox ko cër bi mu mérito mooy wan ko ni yow yàlla yow yaay yàlla wan ko ni yow yàlla yaa ñu bind yaay borom jaam ñi taaxirlu naa ci yow amatuma benn yitte lu dul jàkkaarloog sa jëmm ji yow yàlla jox ko cër xale bi bind mais sam nee na saa yu ma demee te bay julli sama xol bi naa ko jox yàlla te concentré wu mu ne ko bu ñaareel bi mu ne ko wa in kunta fii majalisi naasi faxfas lisaanaka mu ne ko saa yoo demee ba toogate ci jotaay moo xam ngénte la moo xam gàmm la moo xam biir kër la nga dem ba toog ci jotaay ñu nekk fa nit su boobaa na nga muccal sa làmmiñ ci nit kañ fay tudd te nekku fa nitu yàlla bi moo ko dénk doomam ni ko boo bëggee dajeeg yàlla ëllëg yàlla bëgg ba dugal la na nee na ko fexee ba saa yoo toogee ci jotaay ñuy tudd ko fa nekkul na nga sang deram boobu nag jafe na am na koo xam ne yaa ngi naan mooy sa xarit mooy sa doomu ndey kol kirisi bu ñu la gisul moom lañ lay laaj te fépp fu mu toog lu ñuy wax ci ñaaw lu ñaaw ci yow moo koy jiite nit ñi bëgguñu kenn seen bopp rek lañ bëgg moo tax am na loo xam ne boo koy def na la concerné yow seul amul xarit amul partagé amul nangam déedéet jamono moo toll foo xam ni ku jugul ci sa bopp say secret nga koy gardeel sa bopp bis dana ñëw danañu la weer bëccëgu ndara kam sa àdduna yàqu nit dafay am bàmmeelu biir dafay téye ay secret boppam jamono laajatu ko bu njëkk da ngay am xarit lépp nga koy wax mais jamono laajatu ko parce que nit ñi ñoo foo mënatoo xàmmee ki weex ak ki ñuul kon sa secret gardeel ko sa bopp am na ñoo xam ne manqué manqué bu nu xam ci yow tooge la mu ne ko nag saa yoo demee ba jotaay am ñuy tudd nit te nekku fa fegalal sa làmmiñ ci moom bu ëllëgee bu yàlla di audité ña doon wax ca moom nañ la ca kaccat bu ca bokk jombaleel sa bopp jëw jombaleel sa bopp ñu tudd nit ngay tudd ay ayibam bari na koy tudd ay ayibam te yaa ko gën a sikk Sénégal laa gis koo xam ni yow da ngay am paanu problème di lijjanti kopp problème mu jàmbur mais kuy lijjanti sikku nit ñi yaa sikk parce que sikk gi nga sikk tax nga mën a gis sikku keneen mais ku ne sa bopp dalaa war a doy parce que bu ëllëgee ka ngay sikk yéen ñaar bokkoo leen bàmmeel amaana sa xamu la mais foo toog yaa ngi débat diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam te yàlla dégluwul commentaire nit pour li muy may nit mu bañ ko koo may déedéet suñu borom moom dégluwul nit ñi yégul ni am nan donc moo leen bind moom sunu borom waaye fexe na ba ku nekk sa wërsëg nit mënu koo déstabiliser ba mu changé ko. moo tax xas yi la nit ñi di xas ak yu ñaaw yi ñuy wax ci yow mënu laa yokk virgule mënu laa wàññi virgule parce que kii dogalan ca kaw te la muy dogal dogal na ko ba pare. te moo wax ni wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala qabbatin fi dulumaati l ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin sunu boroom xarañam àgg na ci nee na fa ma nekk ca kaw xobu garab bu wadd ci àdduna bi yépp fa mu dal xam naa ko mu ne ko nag boo toogatee ci jotaay ñuy tudd nit na maandu ci moom xamoo ni am na bakkaar yu gën a garaaw njaaloo gën a garaaw fen te nit ñaa ngi koy def parce que bàkkaar bi gën a rëy muy bokkaale parce que bàkkaar yi tolloo wunu ni nga amee valise yu vingt kilo dix kilo noonu la bàkkaar yi mel moo tax yonent bi di wax ni inna min akbaril kabairi bokk na ci bàkkaar yi gën a mag kon loo ciy déggee am na yu tuuti am na yu mag am na nag ay ponkali bàkkaar yonent bi bi ñu ko laajee ni ko bàkkaar yi gën a mag nga xam ni fa la bàkkaar yam mooy profondeur bi yan bàkkaar la daf ni ba ca jiitu mooy al ishraaku billahi bokkaale yàlla yàlla defal la nga sant keneen reer ba suur ndogu ba suur tëdd ci sa kaw lal jërëjëf sëriñ Modou Fall allahu akbar yàlla ni trahir nga ma parce que Modou Fall joxu la li ngay dunde comme yow bi ngay ndogu nee woon nga ma allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala ka yaa ma ko wax man forcé wu ma la yow yaa ni ma wa ala rizqika aftartu yow jaami yàlla bi reer ba suur mbaa nga ndogu ba suur bàyyi fi yàlla di sant keneen yàlla nee na da maa war parce que kon li nga njëkk a wax gëmoo ko yow bi ngay ndogu da nga ne allahumma laka sumtu yàlla yow laay wooral wa bi ka amantu yow laa gëm wa ala rizqika aftartu ci sa wërsëg laay ndogo léegi ndogu ba pare nag toog ci sa kaw lal ne jërëjëfa sëriñ Modou Fall bokkaale yàlla parce que bokkaale yàlla mooy an tajala lillahi niddan wa huwa xalaxaka bokkaale yàlla mooy di wutal yàlla moroom or que yàlla kenn du ko wutal moroom bari na yu ñuy def dañ ci rax bokkaale ba mu ëpp yenn saa yi nga gis ku ku dem ci bàmmeelu sëriñam jàpp ci weñ gi di raay jàpp ci sa bàmmeelu sëriñ di raay di raay weñ gi di bomb ci sa yaram ñii di jël seen kurus di ko bomb ci weñ gi loolu bokkaale yàlla la jël sa kurus di ko raay ci sa bàmmeelu sëriñ sharia nanguwu ko jël say loxo di ko raay ci sa bàmmeelu sëriñ mais am nanguwu ko sa sëriñ romb la nga jàpp ci mbasin bi di raay saa nga gis ku sëriñ romb protocole nga jàpp ci mbasin bi di raay jàpp ci mbasin bi di raay sa kanam bu dee sëñ bi daa jaar fu am poussière da ngay soj de lu mel ni di laa la wax jaamu yàlla jaamu yàlla la yàlla kenn du ko rax ak dara danga koy jox sa lépp wala nga téye sa bopp boo ko joxee sa lépp mu téye la mu ne ko nag li ma lay dénk mooy soo toogatee ci jotaay ñuy ñuy jëw bul participer yenn saa yi nga dégg ko ne man de ba ñuy wax waxuma waaye déglu bi ci déglu bi ci nga bokkee ndax bu dul woon ak kii déglu kii jëw du jëw bàyyi leen di àtte nit te xamoo leen ko bàyyi leen di juger nit te xamoo leen ko bàyyi leen di àtte gor gu ngeen xamul bàyyi leen yàq der bàyyi leen soxor bàyyi leen bon kóor gi ngeen di wóor mu paase ngeen nar a ci seen mbon gi sénégalais da lay siiñ di la ree di la encourager te bu sañoon suba nga paralysé <laughs> sénégalais ngi noonu de di la tàpp di la reetaan kontaan nañ te bu sañoon suba nga def accident dee te yàllaa ngi ñuy won boppam bis bu nekk taxul ñu tiire ci dara lu nit am nga bëgg def pexe pour mu ñàkk loolu nit ki nekk ci bureau am yëgul tinul nga ñëw di fa sotti saafara nit ki nekk ci bureau di liggéey di teral njabootam nga fay teg ay nen nit ku nekk ci sëyam yàqalu la dara nekk ci sëyam di sëy nga ni kut kaa kut da nga ko tas lépp nga teg ko ci bakkan ak intérêt xool nit bañ ko te yowmal qiyaam lu nit ma sa waxal nit yàlla dana nangu say tiyaaba fayee ko ko moo tax danay faral di wax ni siiw siiw am na ci côté bu mu neexee ñu ne ma ci ban côté la ma ne leen côté bi nga xam ne mooy nit ñi seeni i commentaire ak seen bàkkaar li ñuy wax ci yow la yàlla di jël seen i tiyaaba di la ko jox ku ma sa wax ci nit lu ñaaw te xamu la yowmal qiyaam da nga ko ko fay mooy say tiyaaba danañ ko jël jox ko nit léegi nag boo siiwee yowmal qiyaam da ngay tëll rek yàlla ne la kaay équipe bi yëpp xamoo leen woon mais nag saa yoo génnee daan nañ wax ci yow nag te li ñuy wax dara du ci dëgg léegi nag seeni i tiyaaba la ñuy jël di la ko jox naa boo nekkee oustaz bu tabee nag da ngay baal da nga yàlla ñuy baal naa leen baal <laughs> jël seen i dem àjjana parce que bañ koy wax loolu lañ gëm am na koo xam ne li muy wax moom li mu ci bëgg rek mooy ñi ko sopp buñ ko soppati am na kuy yàq oustaz li bëgg ca oustaz ba muy yàq mooy ñi koy déglu bëgg ko buñ ko déglooti or ka ñi seen pas-pas dëgër buñ ne woon yow lañ fekk ca baar ba ngay naan sàngara sax buñ xëyee gën laa bëgg parce que mbëggeel du tricher yaa laa yi fi lhawa nii maziratan minni ilayka walaw ansafta lam talumi am na koo xam ni su xasee bëgg bëgg na am na ñoo xam ne bu nu jàppee jàpp nanu am na ñoo xam ne bu nu soppee sopp nanu kenn mënta déstabiliser seen cofeel dafa am réew mi nag fu lay dund ngay am pour dund ñàkk fayda dee amul leneen am fulla dund ñàkk fayda dee loolu rek moo fi am am fulla mooy concentré wu ci li nga nekk am loo bëgg am ay ambition da ngaa nekk ci tele Youssou Ndour di fi liggéey amal ambition ni ci kanam tuuti dans six dans six ans dix ans war nga mën a am yow sa télé bopp embauché ay nit ñuy liggéey nit dafay am ay ambition doomu aadama bu xëyee ñaari yitte la war a am mooy ñaari compte yim am ci àdduna compte banque bi ak compte bàmmeel bi bu xëyee versé ca dara compte banque bi tey ñaata laa ci dugal tey de cent mille laa dugal danaa góorgóorlu fii ak six mois lu mu gàtt-gàtt naa góor góorlu ci sàkku teraanga ba am dix millions wala am un million te mu lew na la sa compte banque ñor ak sa compte bàmmeel leneen bu mu la ñor ku bëgg avancé ci sa àdduna na la ñaar ñor sa compte banque sa compte bàmmeel bàmmeel ba moom heure boo xëyee del verse koo tane dimbali ko réew mi sonn nanu de boo jaaree ci mbedd mi gis yelwaankat yeeg kilifa yi euh, ndeysaan yenn maire yi ni nu sonnee amuñu lu ñu dundee taxaw di yelwaan ci mbedd mi nga di leen romb ak sa 4x4 ko ba mu sedd ak say verre te yor loo leen mën a dimbalee te yàlla tax te doo ko def te bu neexoon yàlla mu wëlbati carte gi nga doon seen place ñu ñëw sa place yàlla defu ko yàlla di la suturaal ngay xëy di am loo dundee yàlla may la nga am ci sa compte banque lu ëpp 20 millions te am koo xam ni amul lu mu dundee boo xalaatul yàlla doon nit dimbali leen seen mbokk yi ngeen bokkal korite gaa ngi jub si am na gor yoo xam ni rus na noo ñaan am na gor yoo xam ni rus na noo tàllal loxo te yaag ñoom a bokk deret am na gor ñoo xam ni yaag ñoom yéen a bokk deret soo naawee ñu naaw mais du ñu ñëw ci yow di la ñaan xam nga ni seen loxo jotul seen gannaaw yónneel ci ñoom jarul sax nga ciy feeñ bàyyil ba kër gi sedd ba guddi nga yónnee ci ñoom yaag ñoom ma bokk deret seen papa yee bokk seen yaay yee bokk seen ndijaay yee bokk am na ñoo bokkal ñoo xam dañoo sonn fii boroom alal joo fi gis am na mbokk yu sonn loo mën a jaamu yàlla ci ñoom jaamu ko ci ñoom dimbali leen te yàlla tax ci sutura bu la yàlla denkee alal danga koy partager ak nit ñi koo tane nga dimbali ko te yàlla tax waaye bu sa affaire baaxee rek nga jàpp ni àdduna bi fi la yam yaa ngeeg sa 4 x yaa ngeeg sa kër say doom a ngi jàng ci école yu baax sa salaire baax na sa jabar mi ngi ci situation yu baax keneen intéressé wu la suñ ñëwee sa kër di la seet ñu ne nekkoo fi gardien bi ni la est woote nga est-ce que da am rendez-vous day saam te am na ñu ko mënul am na ñu mënta rang mënuñoo xaar ay dem ñu lay déposer ci buntu bureau bi nga toog. ku bu ana <laughs> sëñ bi mi am na ñu ko mënul am na ñoo xam ne seen deret moo mënul dunguru am na ñoo xam ne seen deret mënta mënta dunguru mënu ko mënuñoo nekk suq même buñ ko bëggee fi bokk moo tax mënuñoo doon suq ñoo xam ne ay gor lañu am na ñoo xam ne ay gor lañu lu nu am mu doy leen am na ñoo xam ne du nu tàllal loxo di doye di ci kanamu kenn am na ñoo xam ne lu nu mën a am ñi ngeeg seen personnalité lu nu ñàkk ñàkk ñi ngeeg seen personnalité am na ñoo xam ne ku nu dimbali wax ko diw bërki démb la fi ñëw maa ko defal nangam ak nangam def te yàlla tax réew mi nag am na ñu baax am na ñoo xam dañu baax ba nit ñi xam ne ñii danoo baax te lu ñuy def yàllaa tax waaw mu ne ko nag bu ñetteel bi mooy wa in kunta fii buyuti naasi sa basarak mu ne ko maa ngi lay dénk bu la nit soppee ba dugal la këram rekk waaye na nga gàttal sa gis-gis dugg kër jàmbur naan balcon bi daa gudd ak moom veeram yi rafet nag néegu jabar ji lal bii moo fa nekk ak salle de bi boo fa duggee mën nga faa tëdd ak am na nit ñu sob am na ñoo xam ne kenn du leen dugal ci kër parce que téyewuñu seen i bët dugg ci këru jàmbur lu ne nga commentaire ko seen balcon bi daa yaatu lalu jabar ji nangam nekk xale yi gis naa fa nangam am na ñoo xam ne kër gu nu yendu lu fa daw bu nu ñibbee nettali ko fan jëm mën a nettali mën a seetlu mu ne ko nag maa ngi lay dénk saa yoo dematee ba dem ci kër rekk waaye na fexe ba gàttal sa gis-gis mu ne ko beneen bi mooy wa in kunta ala taami fahfaz maadatika nee na ko boo toogatee di lekk nanga nga ormal li ngay lekk lekk dañu koy jox orma senegal bu njëkk dañu daan teg bool bi ci digg bi ñépp sukk ña ca gën a nekk ay xale ñu jàppaloo leen ndab li ñu naan xale yi ku ci tuur benn cepp benn pepp pepp bu nekk yar la xale yi bu ñuy lekk di xool ci seen kanam noonu la ñu daan yaree démb ak bërki démb ci sunu kër yi léegi loolu xewi na kër goo dugg bu lekk jotee ñu teg taabal ju toll ni innama jabaloot teg ay vaisselle ak yu kenn xamul teg fourchette yi mais ku ne yaay service sa bopp ku ne na jël parce que self service la ku ne yaay defal sa bopp ndeysaan yar amatul yar amatul xale bu ndaw ngay gis fettagul ci nen yor furusetam ak paakaam naan papa je mange pas je mange pas carotte je mange pas diwlin je ma ndeysaan yaratuñ xale yi yaru tubaab lañ bëgg a def ci ñoom xale bu ndaw bu fettagul ci nen nga wutal ko tablette muy dugg ci youtube bi xam lépp nga naan day jàng yonent bi daf ñu jàngal ba jàngal ñu ni nit di lekkee ci ndab yar bi nga war a àndal discipline bi war a nekk ci yow ci jamono bi ngay lekk mais loolu lépp defatunu ko kër goo fi dem vaisselle lañ lay jox kuddu fourchette ndeysaan te xale bi kat ba mu ñëwee ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk ak yonent bi di lekk di lekkee comme ni xale yi léegi yi di lekkee xale yi léegi même buñ la dee ganale sànni la as ganaar ci sa wet xale bu ci xuuse da koy jël yenn saa yi ngay lekk ci kër ñu daggal la ganaar xale bu xale bu wow bët ne ko coppet jël ma ne ko yóbbu nga sama xel mi de am na xale yoo xam ne kenn yaru leen nu ñu sentiree lekk rek la ñuy lekkee am na xale yoo xam ni nu ñu sentiree lekk noonu la ñuy lekkee xale bi nag ñëw ci jamono yonent bi bokk ak moom bool di cuqat rek yonent bi ne ko yaa xulaamu xale bi siggi xool ko seydina muhammad ni ko sàmmillaaha tuddal yàlla xale bi ne bismillah mu ne ko wakkul bi yaminika lekkal li ci sa kanam nit buy lekk dafay wax bismillah balaa tàmbali xam nga ñaan dafa am solo ñaan dafa am solo parce que yonent bi nee na ñaan mooy armu jullit léegi yow ngay jullit lu ci ne wax nañ la la nga fa war a ñaan parce que ñaan mooy ngànnaayu jullit adduaa u silaaxul ñaan mooy ngànnaayu jullit yonent bi jàngal ñu booy lekk neel bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wajaalna min al muslimina loolu nga war a ñaan soo demee bay génn sa kër nga ni bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwata illa billahi al aliyul soo doxee sa soxla bay dellu si ci kër gi ni nga ñaanee woon bi ngay génn noonu ngay ñaanaatee bi ngay dugg da nga naan bismillahi walaj naa wa bismillahi xaraj naa wa ala rabbina tawakkal naa nga dugg ci kër gi bëgg a dugg ci toilette bi yonent bi ne la balaa ngaa dugg neel allahumma inni audu bika min alxubusi walxabaisi nga ñaan doog a dugg mu ne la booy génn waxal gufraanaka nga wax gufraanaka mu ne la balaa ngaa taal sa oto di dugg waxal subhaana alladi saqara lana hada wa ma kunna lahu muxrinina wa inna ila rabbina la munqalibuna nga wax ko doog a dugg ci oto bi boo demee bay ànd ak sa soxna balaa ngaa tàmbali neel bismillahi eh, allahuma jannib nii wa jannibi sheytaana maa razaqtana soo demee ba yëg ni am na luy génn ci yow nga ni alhamdulillahi alladi xalaqa min almaai basaran fa jaalahu nasaban wa sihran wa kaana rabbuka qadira soo déggee ñuy noddu nga ñaan lu ne ak ñaanam lu ci nekk ak ërëm lépp loo war a def ci activité rek jox nañ la ñaan ba nga fa war a def pour mucc parce que ñaan mooy ngànnaayu jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko njabaree liggéey ko mais ñaan moo ko dimbali insa nga naan man nag affaire liggéey yi gëw ko njibax moom amul n'existe pas jàppaguma rek tubaab tubaab lu neel jàppaguma moo gën a yomb waaye bis bu la jàppee nga xam ne liggéey jàpp na la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koo liggéey mu jàpp ko te moo gën ñëpp fukki pas-pas ak benn la ñu liggéey daan na toog ba mu yàgg yaram wi tàng jër wala mu jug di daw te kenn du ko dàq wala yenn saa yi muy waxtu yàlla yónnee ko fallaxeeg naasi moo ko faj naa si mooy ordonnance am yonent bi ordonnance biñ ko bindal mu dem jënd ko ci pharmacie bi mooy naa si moom la ko yàlla yónnee yàlla bind médicament bi jox ko jibril ne ko boo demee ne na ko jënd suba midi ngoon <laughs> allahu akbar bu mag bi yàlla bind médicament bi jox ko jibril ne ko demal jox ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Jibril bind ordonnance bi ordonnance bi kat fii ci senegal bu ñu lay bindal ordonnance da ngay dégg nivaquine Prestamol Efferalgan euh, Bactérine Jibril bi muy bindal Seydina Muhammad ordonnance bi war a dindi liggéey bi ko dal yàlla da ko ni bindal xul auzu bi rabbil falaqi min charri ma xalaqa wa min charri gaasiqin ida waqaba wa min charri nafasaati fi l uqadi wa min charri xaasidin ida xasada comprimé bu njëkk bi boitu comprimé bu njëkk bi cinq comprimer moo ci nekk cinq comprimer ci boîte bu njëkk bi xul audu bi rabbil falaqi min charri ma xalaq wa min charri xaasiqin ida waqaba wa min charri fi l uqadi wa min charri ida xasada muy cinq comprimé moo ne ci benn boit bi mu ne ko beneen boîte bi nag ni mu koy jëlee comprimer yi ñooy ëpp bu njëkk bi parce que bu njëkk bi cinq comprimé la mais deuxième boîte bi nag six comprimé lay am mooy qul audu bi rabbi naasi maliki naasi ilahi naasi min charril waswaasi alxannaasi alladi yuwaswisu fi suduri naasi min al jinnati wan naas boîte bu njëkk bi cinq comprimé boîte bu mujj bi six comprimé mu àmbale ko ba mu jekk ne ko boo demee nee ko moo koy faj jibril départ ak si fekk Seydina Muhammad toog mu jox ko ko moo tax yonent bi daan insister fu mu toll naan muawazataani shifaun min kulli sharrin naana nee na nee na muawazataani falaxeeg naa si nee na dawaa un day faj lépp médicament la pour lépp yenn yi sa bopp di métti kenn jàmbat la bopp nga ne ko am naa comprimé boo xam ne de boo ko naanee looloo dal yonent bi moo tax fu mu toll di tagg fa la naa si parce que moo ko faj alaaji malik nag sama sëriñ sama sëriñ Seydil Hadji sama sëriñ man dong nga xam ne bokkuma ko kenn alaaji malik moo bind ni waqat saaxaru xayrul wara fa shafa bihi tabibul atibbaai wal ilahu wakilu Seydi Hadji Malick nee na waqat saaxaru njabar nanu xayrul waraa gën gi mbindeef fa shafa mu faj ko tabibul atibaa i docteuru docteur yi mu ne wal ilaahu yàlla mi ko faj nag nga xam ne mooy docteuru docteur yi alaaji Malik nee na wakiilu fu koy wéeru wéerul ci moom wéeruwaay bu mag bi nga xam ne ku wéeru ci moom doo daanu mooy yàlla keneen ku dul yàlla boo wéeroo ci moom bu la mbasee da ngay daanu kuy wéeru wéerul ci yàlla kuy yaakaar yaakaaral yàlla kuy ñaan ñaanal yàlla kuy jàmbat jàmbatal ca yàlla ni ko nangam ak nangam laa bëgg kuy bëgg bëggal yàlla kuy sopp soppal yàlla kuy wóolu wóolul yàlla kuy ànd àndal ak yàlla keneen koo fi mën a yaakaar ku dul yàlla bu la waree nga yëg ko mu ne ko nag ñaar tamit bu ko fàtte mu ne ko man ak ban mu ne ko yàlla ak bis penc am na loo xam ne ku koy def boo xalaatee bis penc doo ko def kon nag yàlla na nu yàlla may dégg gu ànd ak topp ci darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne rek jaamu nañ ko yàlla ci koor gi yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla may ñu ñu fekke ko at yu bare bare bare bare bare koor gi nag mi ngi tàggatoo waaye jaamu yàlla moom du fi jóg fa tabaarakallaahu ñu baalu àq nag réew mi yépp di ñaan yàlla sunu borom yàlla nañ ko feete at yu bare bare bare bare bari di ñaanal président Youssou Ndour yàlla na ko yàlla yokk dëgëral Youssou ku ma estimé la ku ma bàyyi xel la ku may ñaanal la itam yàlla yokk koo dëgëral ndax am na loo xam ne ku ko def ci réew war nañ laa ñaanal boo xoolee li muy fay ci TFM di ko fay ci RFM ak feneen ak feneen fu ñu xamul te ña muy fay dañoo yor njaboot lam leen di fay ci la ñuy dundalee seen njaboot ku mel noonu boo demee ay tànkam chômeur ngay yokk ci réew mi yàlla na ko yàlla yokk dëgëral yal na ko yàlla sàmm ak ay rakam ak ñi mu bokkal ñëpp ci darajay sayyidina muhammad sallallahu alayhi sallam nuyu téléspectateurs yi doon bàyyi xel émission bi nuyu bu baax maa aussi c'est mu lakkale mi nga xam ni moo ne ci régie bi ak ñi koy jàppale ñëpp fa tabarakallahu nuyu soxna jee astu sare ca États-Unis sunu soppe la noonu la ñuy nuyoo itam le ministre Moustapha Diop di nuyu madame Ndiaye bu baax di ko ziyaara di nuyu madame Mbengue mi nga xam ni mooy loxo ndeyjooru Adja fay Faye Sall di nuyu Adja fay sàll bu baax di ko ziyaara di nuyu bu baax tabaarakallahu président Macky sàll moom itam di ko ñaanal yàlla yal ko yàlla yokk dëgëral di nuyu soxna Aïssa Cissé ca Amérique moom itam sunu soppe la ñu di ko ziyaara bu baax di ñaan yàlla sunu borom yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na ñëpp wér yal na ñëpp gudd fan Abdoul Aziz Al Amin suñu rakk ñu ngi koy nuyu nuyu soxna Aji Ndiaye di ko ziyaara bu baax alxaaji Pape Diop duna ko fàtte nga xam ni xam-xam bu rëy lay génnee ci maqadis di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yokk dëgëral di nuyu mbooleem soppe boo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel émission bi di leen jox dig daje di nuyu nag waa Europe ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel xam naa ñu ngi waaj incha allahu taala ci semaine yii di ñëw ñoom itam dem seeti leen ñu am fa nag ay tournée yu am solo yàlla na yàlla mottalil ñu ko war na ñoo dem Paris war nañoo dem Italie war nañoo dem itam Allemagne ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla mottali lépp te lépp nag nekk tukkib lislaam nekk mission boo xam ne ñu ngi koy dox ci jaami yàlla yi yal na yàlla mottalil ñëpp ci darajay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.